Serigne Habib la nit la boo xamante ni euh, taxaw na musique africaine rawatina musique sénégalaise du monument sénégalais du monument africain ñu koy euh, ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla na ko Serigne Touba bi mu gëm teeru ndax nga am doom bu jigéen tuddee Sëñ Bamba am doom tuddee Sëñ Saliou Aku way sa ah. jàmm rek ko mën donc ñu ngi koy ñaanal Serigne Saliou gi mu bëgg ak sa jàmm gi mu yakar yalla nako walu ci barke sayidina Mohamed yalla bu ciat jir ci bàmmeelam ñun nak dañ fi nek en tant que dom jarbat ak artiste nit la bo xamanteni nit ku baxon la bëgg li def té fu mu toogaan kenn du ñep donc yaakaar bi ñam ci mom moy yërmande gi mu doon doxé ak jami yalla nako borom yàlla ko Serigne Touba senegal yep ñakku ñu nak Afrique yep ñoo ñak ang koy jale senegal yep diko ñaanal jamm fi mu jëm wa rendre hommage nak bo li mom weesu ko wa pour man mais ñi ngi xol xeyna fi ak ay bés ñu ci kanam bu laajee ñu def dara pour mom ñu def ko inshallah waye li ñu waral moy tew taxaw ni vraiment suñu idole suñu icône bàyyeekoo na fi tey jëm Barça